mbokk yi ñu leen di euh, nuyu bu baax a baax di euh, rafetlu seen euh, ànd ak rajo Rewmi FM ñu leen di nuyu bu baax di leen di jaajëfal yéen sunu mbokk auditeurs yi ak sunu mbokk auditrices yi xam ngeen ne samedi bu jot bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu maanaam 15 heures jàpp 16 heures ngeen di ànd ak seen mbokk Abdou Khadre Seck ci seen émission pencum réew mi tey nag Adama Diallo moom moo nekk ci wàllu technique bi. ñoo ngi invité nag euh, Pape euh, saane di ab euh, analyse politique xelam màcc jëm ci wàllum politique bu baax a baax ak wàllum communication ñu fas yéene waxtaane lépp loo xamante ni aju na ci actualité ci réew mi rawati nag opposition bi nga xamante ni gis nañ ne ñoom ak nguur gi daal seen diggante neexoon na ba mbas mi doog di commencé ak jamono ji ni nga xamante ni nag ni la ak féewale am ci seen biir ak ëllëgu Sénégal bu woppi coronavirus ji ji jàllee loolu lépp nag di ay ponk yoo xamante ni danañu ko daal di euh, waxtaanee. te nag mbokk yi danañu daal di euh, waxtaanee. Uh, lu bëree bëri danañu waxtaane nag li nga xamante ni tin mooy état d'urgence bi nga xamante ni président Macky Sall uh, daal di na koy uh, daal di na koy yokk ak nag euh, réeroo gi nga xamante ni jamono ji moom lañ gis ne dafa am diggante opposition bi ak euh, ñi nga xamante ni ñoo yore pouvoir bi lu jëm ci wàllum euh, décret bi nga xamante ne bi ñoo ngi koy wax ci conseil économique social environnemental dinañu ko daal di euh, jàngat ak euh, sunu gan lu jëm ci comité de suivi bi nga xamante ni euh, tegoon nañ ko fi teg nañ ko fi tamit ngir nag mu daal di saytu mille milliards yi loolee dinañu ko daal di waxtaanee lu yaatu yaatu lu jëm tamit ci lu li nga xam ne moo xew Senelec te dem ngeen gis ay way politique yu bëree bari wax ci yooyu yëpp di ay ponk yoo xamante ni danañu ko daal di waxtaanee ak sunu gan. Euh, xam naa Pape euh, Pape Escalier nag moo xaw a kii tuuti. ñoo ngi lay nuyu amul problème Abdou Khader. Ah. d' abord euh, di jéggalu. Mhm. di jéggalu en même temps seeni auditeurs tardé bi bu amee. du ci yéen ci man mii la amul solo voilà <laughs> ma calculé wu lu baax diggante sama kër fii macha allah xalaatoon naa ni ak samedi bi ak coronavirus bi ay problème amu tayage amul benn muskila Pape Sané yow nga nekk tas taskatu xabaar journaliste nekk euh, analyste di analyser lu bare bare bari di si def ay jàngat nga jiite tamit euh, Atlantique euh, acti tey ñu dellu am mbégte nag bu baax a baax invité la ngir nag ñu jàngat yu bare bari yoo xamante ni actualité la askan bi tamit maanaam sàkku ku leen ci indil ay leeral ñoo ngi lay nuyu Pape. waaw maa ngi delluwaat di la fay Abdou Khadre di fay say auditeurs di fay di nuyuwaale askanu Sénégal bi yëpp. Mhm. di ñaan yàlla it euh, lépp lañ fi wax rek yàlla am njëriñ. macha allah euh, Pape Sané euh, dañu gis ne euh, njiit réew mi di président Macky Sall yokk na li nga xamante ni mooy état d'urgence bi lu toll ci fanweeri fan waaye jamono la joo xamante ni avant mu ko yokk gis nañ ne ñaxtu yi fenn fu nekk doon na fa doon na fa balle ñenn ñi njortoon ne euh, dinañ ko yemale fii ak école bi ñu ubbeek euh, yu ni mel yow lan moo ci sa xalaat ci yokk boobu. waaw xalaat bi ma ci njëkk am au delà sax yokk bi mooy légalité yokk bi mooy maanaam ndax war na ko yokk moom wala waru ko yokk man mooy sama première euh, jàngat jàngat euh, ci wàllu yoon maanaam sunu charte réew ni mu tuddee président de la république sart bi da koo may moom mhm. mu déclarer décréter li ñu naan état d'urgence te bu ko décréter ci fukki fan ak ñaar lay yem loolu la ko yoon may loolu la ko ndeyu charte réew mi may constitution bi bu ko naree bu maanaam bu soxlaa ñu yokk ko pencum ndaw réew mi mooy assemblée nationale ñoo ko war a yokk. Mhm. ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite mais dañu seetlu ni que ñaari yoon yi mu ko yokk yëpp daf ko yokk daf ko yokk ci dayoo boppam ñu bëri nag dañ ko méngale euh, ak loi d'habilitation mi nga xam ne daf ko votelu mais loi d'habilitation boobu mu votelu yoon ay ordonnance la ko may mu jël maanaam mooy day gouverner. ci ay ordonnance soxlootul xaar assemblée nationale pour kii pour maanaam tey jii bu amoon lu mu waroon décider war a war ko def ci wàllu doxalinu réew mi. mooy ay marché la wala yooyu. ay appel d'offre yooyu yooyu yoon ci ci wàllu yoon ordonnance la la wala la war a administrer réew mi la war a doxalee réew mi. Mhm. mais yokk nii mu ko yokkee nii ci wàllu yoon taxawul mooy premier jàngat bi nga xam ne moom mun naa ko ci wax quoi bi nga xam ne moom. Euh, di nga naa yoon. dafa jalgati yoon mooy premier jàngat bi ñaareelu jàngat bi mooy que yu mel nii bu amee ci réew suñu demee ba di ko yokk dañuy def liñ naan évaluation ñu daal di xool ni que lii de bi ñu ko fi tegee ak léegi am na yokkuteef ci liñ doon séntu wala affaire bi amu ci impact wala lii ak lii ñu daal di évaluer daal di dem mais ci jàngat bu très simple bi nga xam ne yow man bépp sénégalais mun na ko jàngat mooy que jamono yi ñuy jël euh, mesure bi di jël état d'urgence bi ak couvre-feu bi jamono yooyu néewoon nañ loolu loolu loolu ay sénégalais yi nga xam ne amoon nañ liñ naan Covid 19 dégg nga nga xool ci jamono yii ni affaire bi tasaaroo ci dëkk bi donc moo lay wan ni que évaluation bi ci war nguur gi defu ko nguur gi bu ko defoon. new ma du yokk de néew ma du ñu du uti prorogation état d'urgence ba couvre-feu bi mais daañ ko def sectoriellement maanaam secteurs yi nga xam ne comme nañ ko waxee woon ca njëlbeen bi secteur yii c'est des secteurs à risque gox yi ay eh, goxu risque la dañ leen waroon confiner totalement je crois que bu doon dafa am évaluation ci évaluation bi noonu la waroon demee gox yooyu nañu waroon confiner bàyyi sénégalais yi continue dund seen dund parce que am na ay gox yi nga xam ne ba léegi feebar bi nekku fa te tey jii seen activité yëpp freiné ndax la mu freiné parce que dakaar am na ay e cas Thiès am na ay e mbuur am na ay e cas donc loolu moo tax mën ne la évaluation amu ci. d' accord kon yow da ngaa jàpp ne daal ñoo ngi loraale ay gox yoo xamante ni seen yoon nekku ci. mais effectivement boo xoolee sëñ Abdou Khadre xam nga euh, tey jii dama yaakaar ni que bu doon sunu nguur gi am nañu euh, liy tubaab naan jugeote xaw ma nu ma ko mënee wax ci ci wolof. Hmm. mooy am na ñu seetlu as tuut. waaw am na nañu gis-gis bu xaw a kii waaw tey jii. occasion la woon tey gox goxaan yi nga xam ne acte trois de la décentralisation président de la république bi mu koy yóbbu assemblée ñu koy voté dafa ne woon dafa bëggoon équité territoriale mooy maanaam gox yëpp. yem tolloo ah. tey jii occasion la woon pour moom mooy que gox yooyu nga xam ne ba tey jii corona dugg fa wala ou bien lam fa dugg néew na tey jii yoon la woon ñu développé gox yooyu c'est-à-dire permettre gox yooyu ak ña fa nekk di liggéey. parce que liggéeyu gox yooyu mooy permettre Sénégal bu ñu génnee ci corona bi ñu mun a continuer di dund nañ doon dundee parce que tey jii na la leer ni que àddina bi yëpp la ñu yor ci dund yor ko ci garab yor ko ci leneen te nga xam ne dañ ko doon jéggaani tey jii fañ ko doon jéggaane di ko fa jënd ñoom ñoo ñu ko gën a soxla te bu ñu génnee ci corona bi dana am la nga xam ne daañu ko soxla te duñ ko mën a am tey jii il était temps tey jii yu mel ni gox yooyu mooy vallée delta delta du fleuve et ñu gën leen dooleel production rii bi yokk ñu dem lu mel ni Anambé dooleel leen production riz bi yokk dem lu mel ni Saloum dooleel leen production gerte gi yeneen yi yeneen yokk ba nga xam ne bu ñu génnee ci lii fépp fu ñu dem di uti ceeb bu ñu ko fa amul daañu ko am suñu réew. d'accord euh, dañoo gis tey euh, tey ci samedi ji euh, ministre Abdoulaye Diouf saar wax ne Dakar jamono ji mbas mi jéggi na fi dayoo ba nga xamante ni tey maanaam kuréel gi nga xamante ni maanaam ñooy saytu. Euh, di xool yan yan yan directive la ñuy jël dinañu daal di amal ab réunion boo xamante ni danañ xool yan mesure la ñuy jël ci dakaar ndax kaa communautaire yi bëri na fi jàngoro ji mag ngi fii euh, ma fii law euh, mais li ñu nemmee ko mooy comme ni nga ko waxee sànq dafa am mesure yoo xam ne dañ koy jëloon ba nga xamante ne Sénégal amutoon trente cas Sénégal jamono ji mbir mi di gën di dem ñu gën a yoxamal mbir yi mm-hmm. loolu tamit élèves yi war a dem jàngi ñu gis professeurs yi tamit plus de presque deux mille et quelques ci Dakar ak Dakar ni fi mbir mi mel war a dem ci gox yoo xamante ni wopp ji amu foon est-ce que tamit loolu Pape amut loo xamante ni tey man xel man na see tey. Euh, waaw juste pour euh, dellu si ci li nga wax ci ministre euh, de la santé Abdoulaye Diouf Sarr li ma wax day day firndeel juste li ma wax mooy ñàkk évaluation bi parce que bu doon dañu évaluer hmm. lii mu wax nii tey. defoon nañ ko balaa ñoo proroger état d'urgence bi parce que umpul kenn ni que muy fii di Dakar Touba ak Thiès ñooy épicentre coronavirus coronavirus kooku c'est-à-dire il faut jarul laal laam-laamee. lu ñu leen waroon a léegi nag non confinement total. c'est-à-dire mm-hmm. confinement total da ngay jël dëkk yu mel ni euh, euh, États-Unis New York mais seen wàllu démocratie seen xarañ ci démocratie ak seen egg egg ci démocratie ñun àgguñu fa mais pourtant ba mu ko aajoo gouverneur bi. dafa jël ay quartier wu quartier wu New York confiner leen totalement xam nga loolu dafa am ay décision yi nga xam ne nguur bu koy jël loxoom warul euh, trembler mm-hmm. bu dee nag da ngay calculer politiquement nguur ñaari calcul moo ci am mooy nga calculer politiquement boo calculer politiquement mooy yaa ngi xool nooy faluwaatee. Mm-hmm. ou bien nga calculer calculu homme d'état mooy maanaam yaa ngi calculer yow sa réew mi nooy def ba aar leen ba nga xam ne. lii jamono yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel mooy coronavirus bi gaaw fi jógee. Mm-hmm. mais calcul bii nga xam ne man moom laa jàngat ci réewum Sénégal ci njiitu Sénégal. Mm-hmm. mooy calcul politique la. mooy que tey jii euh, am gox ci Dakar yi nga xam ne ay bastion politique la pour nguur gi duñ ko laal. Mm-hmm. non dañuy waxante dëgg tey boo jëlee lu mel ni district ouest. district district ouest daanaka euh, mooy principal bastion wu APR fii ci Sénégal ci Dakar. Abdoulaye Diouf Sarr mooy base am mais duñ ko laal parce que gain politique la ba nga xam ne tey jii buñ ko laalee xëy na ñoom ñi ngi yaakaar ni que bu ëllëgee buñ leen soxlee pour ci ci wàllu carte duñ leen ko jox. kon da nga jàpp ne calcul politique am na non calcul la lu mel ni Touba cay jamono ba koy médecins yi di wax nit ñi ñemewuñu ci woon àgg parce que ñi ngi doon calculer également un gain politique. tey bu ñu demee ba bëgg ne dakaar dañuy jël tey tey ministre bi jël ne non dakaar ci boppam il faut ñu toog waxtaan xool mesure yu ñu ko yu ñu war a jël. pour ak lu mu diis diis diis diis mooy que tey jii je crois que euh, seen retard bi ñu amoon mu ngi leen di rattraper te tey jii ay conséquences conséquences bu ciy mënti am ñoom ils sont responsables lii boo gisee ma wax la ndax lan ñoom seen responsabilité dugg ci gis nga Fran euh, France. Mhm. Euh, dëkk bu mel ni Orléans. nga xam ne dafa mel ni dafa prestige la ci genre ci gouvernement français. Mm-hmm. ba mu amee corona gars yi dañ ci baroon jël ay mesure far mu dem jur fa la nga xam ne juru ko fenn ci France mais tey jii soo demee France ci tribunaux France ak cour européenne yi y' a cinq plaintes yi nga xam ne ay français. ñoo ko déposé contre le gouvernement français ak ay ministre français pour non assistance parce que jamono yi nga xam ne dañu waroon taxawu gox boobu taxawuñ ko parce que prestige boobu nañ doon calculer mooy prestige politique boobu. waaw gis nañ euh, ministre Aly Ngouille Ndiaye moom dafa wax ne ñi nekk ci région de euh, région ak région de Diourbel ñoom amuñu sañ-sañ circuler ci biir région bi. sans autorisation mais bu dee yeneen région yëpp ku ne am nga sañ-sañ nga circuler ci biir région bi est-ce que tey fu mel ni Touba nekkul foo xamante ni tey état bi euh, dafay ragal di fa jël yenn yenn décisions yi ndax gis nañ ne coronavirus bi dafa bëri lool Touba euh, fan yi ñu génn soixante douze heures bi rek am na onze cas communautaires tey euh, est-ce que du état bi dafay am lu muy ragal a jël di ay dogal ci ci dëkk bu mel ni Touba. mais Abdou Khadre wax nga ko dañu ragal kooku cela va cela coule de source dañu ragal. Mm-hmm. waaw ragal bi tey man su ma déglu discours arrêté Aliou ministre Aliou Ngouille Ndiaye daf ay rey la may def daal. xam nga ndax lan mu may def ay ree parce que la mu wax mënu ko def mënul nekk xam nga ndax nekk parce que daf koo jël daf ko décider jamono ji nga xam ne euh, takk der yi nga xam ne ñoom ñoo waroon taxaw def mission boobu tey jii ñi ci bëri ci ñoom dañu découragé mooy benn découragé li indi découragement bi mooy dégg nañu coow lii nga xam ne moo fi judd ci set mille cent francs ya nga xam ne moom lañ leen fay ci euh, deux mois yi nga xam ne moom lañu taxaw ci tali bi mooy benn xam nga loolu rek déjà rek benn facteur boobu rek mun na tax ni euh, kii boobu décision ministre boobu mënul am. Mhm. mooy ñaar euh, mooy benn. ñaareel bi mooy que ministre bi dafa waroon am sañ-sañ bañ a tudd Diourbel tudd directement Touba. Mhm. parce que problème bi tamit boo nee région de Diourbel yaa ngi ciy tooñ ñi nga xam ne bokkuñu ci. Mhm. c'est-à-dire ndax Diourbel ci Diourbel boo xoolee jur département de Diourbel. benn kaam moo fa amoon te te wér na. wér na xool département Bambey amagul ah, cas amagul cas. waaw def affaire bi département Mbacké la mais commune bu Touba ak commune bu Mbacké ndax département Mbacké xam nga seize communes la mais boo xoolee commune bu Mbacké ak commune bu Touba la mais euh, particulièrement commune bu Touba voilà kon nag tey jii logique moo doon tey jii mu ne Touba ak Mbacké confinement total moo fay am mooy comme lii am Dakar rek tey jii dañ na noonu ne dañu waroon wax logique pour logique district ouest bi nga xam ne mooy lëmbee corona bi fii ci Dakar. Mm-hmm. dañ koy confiner. mooy yoof mooy yoof ax li ko wër yëpp mooy district ouest boobu. gis nga tamit loolu mooy responsabilité nguur loolu la ñuy xaar ci nguur nguur bu tolloo ci ay calcul politique rek mooy mu ngi sànq askanam te calcul politique boobu nag moo jur lii nga xam ne moo nekk di am ba nii mooy ñaareelu jàngal ñetteelu jàngal bi Abdou Khadar mooy bi nga xam ne même yow man keneen soo ko ko waxee yaa ngi tudd léegi ouverture des classes mais xam nga tey ji xale yooyu di dem di ubbi di jàng ji li gënoon yenn logique bu dee yu gënoon yenn maanaam mooy ñoom seen logique ni ñu koy doxalee ni ñu ko bëggee mooy ci université yi nañu waroon tàmbale parce que université yi ay magum jëmm nañu xam nañu nu ñuy def ak geste barrières yi pourquoi tàmbale wuñu ko université yi bëgg dem ci ndaw ndawaan yi nga xam ne gestes yi maîtriser wuñu ko bëggu leen ubbi bëgg ubbi école yooyu mooy ñeent ñetteelu njàngat bi ñeenteelu njàngat bi mooy enseignant yooyu nga xam ne nañ jëlee fii Dakar di leen yëpp ci ay bus fan nañ leen dugal fii defal leen ay test wane ni que benn jàngoro jotu leen wala positif ñu mooy ñeenteel bi donc moo lay wan ni que décision gouvernement bi show la ak impréparation impréparation impréparation nag boo ko gisee ci nguur toujours xam nga lu muy jur ay dégâts dégâts yooyu ay dégâts collatéraux la tudd te fu muy dal ci askan bi nga xam ne mooy France bi nga xam ne moo gën a gën a gën a gën a euh, ñàkk weeruwaay ci réew mi d' accord euh, li nga xamante ni tamit ba tey mooy euh, ni ñu gérer daal. Euh, wopp ji ci Sénégal jàpp nga ne daal bëri na ay rëq-rëq yoo xamante ni ak ay manque de courage boo xamante ni yow gis nga ne am na ci. mais ay la yéwén ay la yéwén ni ñuy gérer coronavirus bi crise la xam nga crise hmm. ci wàll àddina bi yëpp. dañ naan dafa am ay spécialiste gestion de crise gis nga réew moo gis réew moo gis am na fukk ba ñaar fukk ba fanweeru nit ñi nga xam ne seen xarañ xam nga mooy lan mooy crise bu amee nañ ciy génnee mais boo xoolee fii néew ma amul de mais boog man gisaguma benn spécialiste gestion de crise ñu dugal ko ci mbir mi gisaguma ko moo tax nag dès le départ ba fi ñu egsi nii soo xoolee décision yi ñuy jël day wuteeg réalité bi certes mun nga ma wax ñeneen mun nañ ma wax ni que nguur fu muy toll fu muy toll ci degré de renseignement keneen du fa toll mais bu doon degré de renseignement boobu fa nañ toll am renseignement yi ñuy war a am je crois que duñ doxalee nii pour gàttal daal mooy que gestion bi baaxul te tant que ñu ngi continuer nii cas yi day gën di law Mhm. d' accord euh, li nga xamante ni tamit euh, moo jëm ci euh, président Macky Sall waxoon na lu toll ci mille milliards kane moom lay gérer li nga xamante ni mooy mbir mi mais fi ñu ciy waxee rek mooy li nga xamante ni ay aide alimentaire la ñu dénk ko Mansour Faye gisoon nañ ne coow amoon na ci lu jëm ci wàllu marché yeeg yooyu mais yombaloon nañ Mansour Faye mu dem lijjanti ay marché ni mu gën a gaawee si coobaree boppam mais gis nañ ni ñu ëpp tamit ci askan bi ba léegi nii jotaguñ ci ci ndimbal yooyu. lan nga jàpp ne moo tàgga témbeel mbir yi bon man xam man ndimbal yooyu pratiquement euh, déjà rafetlu euh, doonul woon li nga xam ne dama ko rafetlu lu tax euh, parce que image yi mooy jox man man image yi ma jox mhm. mooy maanaam président de la république dafa jël ñàkk sénégalais yi weer leen ci àddina mhm. ñàkk ñàkk sénégalais yi mhm. moom la weer cest à la pauvreté des sénégalais moom la exposé à la à la face du monde mhm. dëkk yi bëri na dëkk yu ñu wër lii mu def nii moom ak benn dëkk Sénégal euh, euh, Afrique ñoo ko def mooy gàmbi li gënoon jekk man na may dundalee sama njaboot ak yow na ngay dundalee sa njaboot xëy na bokkul mhm. na mu defoon ci bourse familiale yi ku ci nekk ñu yónnee la lañ lay yónnee nga xool noo koy gérer sa njaboot moo gënoon rafet xam nga loolu bu amoon mm. néew ma du am coow mais du jur coow lii nga xam ne moom la séddale séddale jur euh, euh, séddale dund gi euh, produire mm. xam nga ndax lan coow li bëri mm. parce que dañ ko jël teg ko ci benn schéma bi nga xam ne politique la gën a nirool que defar dimbali askan que dimbali mm-hmm. maanaam sénégalais yi sonn ngeen corona bi ñëw na gën na leen sonal man yëkkati naa lii teg ko ci loxo diw pour mu jàppale leen ko non discours boobu c'est un discours foo parce que la ñuy dimbale sénégalais yi sénégalais ñoo ko moom. ñoo ko waaw. Mhm. du lu génn ci poosam moom président Macky Sall wala ci poosu ministre Mansour Faye déedéet pour gafal sénégalais yi sénégalais ñoo ko moom ñoo ko dajale jox ko. Mhm. pour maanaam loolu mu ji. li si des télé genre téléthon li si des ay ndimbal ay ndimbal la mooy mooy benn ñaareel bi boo xoolee déjà. Mhm. nañu defaree nañu poser jalon wu distribution yi. Mhm. mooy maanaam. Mhm. Euh, jël maire yi teg leen euh, ci ci ci ci ci ci processus bi day fausser affaire bi xam nga la muy fausser affaire bi. parce que maire yi boo jëlee maire yi dans leur globalité à quatre-vingt-dix pour cent c'est ay maire maire yi ñu ils sont dans le camp du pouvoir. à quatre vingt dix neuf pour cent ñoom ñëpp ay super nañu muy opposition. muy pouvoir ak pouvoir. tey jii ñoom bu ñu toogee di séddale li gën a logique mooy bu ñuy séddale ñoom mooy Sénégal loolu lay noonu lay doxee. Mhm. c'est-à-dire nit ñi parti nañuy jiitale balaa ñoo jiitee patrie. Mhm. bu doon nag logique bi mooy pat patrie bi moom la ñuy jiitale soog a jiital parti bi donc loolu nag tax na mooy un boo ko xoolee ci siblage bi jaarul yoon quartier yu bëri. dafa mujjee indi ay problème fu mel ni grande Dakar sous préfet bi dafa mujjee limogé euh, éliminer comité de ciblage bi jël ay ndaw tànnal la tànnal boppam ay ndaw ay euh, président ASC ay maire ak ay consort ay chef de village chef de quartier plutôt pour mun a eggale ciblage bi boo duggee ci banlieue bi ba tey jii xam nga ndax lan ñemewuñu séddale. Mhm. mooy coow li mu nar a jur. coow li mu nara jur moo gën a garaaw corona c'est-à-dire dana indi dégâts yu gën a garaaw corona. ah bon parce lu leer laa la wax. parce que problème bi mooy dañ ko def ku am ndey ax ku amul ndey waaw da ngay gis man am na am na am naa ci ay documents yi nga xam ne da gis ay communes yi nga xam ne dañu samp ay ay comité de ciblage balaa comité de ciblage yooyu pare seen ciblage ñoom génnee nañu seen liste ba yónnee ko. Mm-hmm. xaw ma ndax yaa ngi comprendre maa ngi génnee nañu ñoom seen liste. Mm-hmm. ba yónnee ko ne leen ñun ñii nañu ciblé. Mm-hmm. bokkul ak RNU bi. bokkul ak bourse de famille. bourse waaw mais mais mais man damaa gis ay comité de ciblage yooyu ngay wax noonu mais ñi koy jiite ñëpp presque ay ay way politique ñu doon. waaw mais moom laa lay wax moo tax ma ne la lii li mu nar a jur moo gën a garaaw corona bi. Mhm. waaw boo demoon tey fu mel ni Touba ñi jiite euh, comité yooyu ñu si bari si ci APR lañ bokk. voilà loolu nag moo nar a jur musiba bi. te ñooñu kenn ku nekk am na gox boo xamante ni fa la say nekk fa la say nit nekk. ma jox la kaaw Sicap Mbao euh, Diamaguène fan yee nañ ma yónnee ay vidéo guddi. Mhm. la maire bi doon woo ay ndawam ñiy dem di fa jëlee di jëli dund ci école bi di ko séddale ba affaire bi jur fa coow. ay guddi guddi guddi vidéo vidéo yaa ngi nii sama téléphone. Mm-hmm. guddi waaw guddi dañ doon séddale. dund yi foofu ci ci ci biir école bi mais euh, euh, li nga xamante ni mooy comité de suivi tamit loolu lan moo ci responsabilité am ak tamit ndax am na njariñ waaye man pour man de comité de suivi bi wax fa dëgg yàlla man de man sama wàllu bopp man suñ ma fa naroon nommé ma ne leen bëgguma xam nga ndax lan parce que li ñuy gérer moo nar a bëri te duñ ci mun dara xam nga mbir buñ la ci buñ la ci joxee responsabilité day fekk ñu boole la ci conception bi ci njëlbeen maanaam tey buñ la woowoon tey ji ne la immeuble bi dañu bugg nga tegal ñu ci dàll hmm. balaa mu doon logique de loolu mooy ba ñuy teg fondation yeeg yooyu. ñu xoolal affaire yi ba xam na comme déet. waaw yow fekk yow nga fekkee ko. Hmm, hmm. xam nga loolu mooy logique. Hmm. kon bu boobaa danga mën a taxaw ne li yenu na maanaa wala yenul maanaa mais commité de suivi bi c'est parce que nit ñi ñoo coow yuuxu looloo tax président jóg créer comité de suivi mais comité de suivi boo xoolee sa lettre de mission sa feuille de mission daanaka ay contentieux rek la nar a gérer mais contentieux yi bu ko gérer ba pare fan la jëm ci tribunaux yi wala fan. ci tribunaux yi lay jëm. Hmm. mais gis nañ fi rapport cour des cour des comptes gis nañ fi rapport IGE gis nañ fi rapport OFNAC fu mu mujj. d' accord léegi gis nañ tamit euh, li nga xamante ni mooy mbas mi ñi mu indil ay jafe-jafe moo xam ay entreprise euh, sénégalaise ay entreprise privée rawatina ñi nga xamante ni ñoo yëngatu ci wàllum euh, wàllum hôtel wàllum restaurant xeet yu demee noonu est ce que tey ñooñu dina yombaat si ñoom ngir ñu amaat dayo bi ñu bi ñu amoon. non xaw ma restaurant yi de waaye hôtel yi moom ñoom amuñu dara lu ñuy kaas. Mhm. yow hôtel yi nga xam ne cinquante pour cent de remplissage pour nga am ko problème la. Covid 19 bi tax nga am 100 pour cent de remplissage ñoom hôtel yaakaaruma moom ñoom ñu am lu ñuy kaas. kon hôtel yi ñoom ñoo ngi liggéey. ah déedéet ñoom ñu ngi liggéey parce que maladie fi ñu leen di dugal. ci hôtel yi ci hôtel yi nañ leen di dugal. di leen fay fukki junni ak ñaar wala fukki junni. chaque jour. waaw kon nag ñoom je crois que ñoom kaasatuñu. léegi xëy na xëy na kay restaurant yi. waaw ñoom daañu am lu ñuy kaas parce que ñoom boobu ak Euh, ci wàllu entreprise sénégalaise yi c'est-à-dire doo leen ci tudd ñoom rek da nga ciy tudd entreprise yu bëri. Uh-huh. tey jii seen entreprise bi. Uh-huh. la ngeen doon fonctionner. Uh-huh. daanaka pratiquement a 60 pour cent wala 50 pour cent ngeen di fonctionner. man kazaalika keneen kazaalika ainsi de suite donc ça veut que corona bi ñun ñëpp la. impacté mais mais entreprise yi tamit état bi jàppale wu leen de mën nañ ko wax entre guillemets jàppale wu leen. non mais xam nga moom président bi muy def waxoon na la nga xam ne. moom la leen di jàppale mais daf see dañaat. waaw mais xam ba léegi nii. loolu sax. mais dafa am lañu naan euh, impossibilité. Mm-hmm. parce que charte yi mu njëkkoon teg. Mm-hmm. Euh, man moom euh, biiroon na ma am na je crois que fii ci plateau bi laa ci doon waxtaan ak sëñ asan Assane Samb asan Samb waaw. laa ko doon wax man ko lii mu jël ni a naa man ko dana ci dellu gannaaw xam nga ndax lan mu naa man ko parce c'est impossible. heureusement dellu si na génn génnaat na ci mais gis nga moo tax ma ne la euh, réew toujours dafa am solo xam nga solo si mooy lan. Mhm. mooy ñun suñuy réew yi li tax ñu taxaw ba léegi nii mooy une administration forte mais dafa am la nga xam ne dañu nekk di ko jiital depuis quinze an vingt ans mooy une administration politique te politique foo ko dégg rek mooy que far-far. day feeñ par parloo par parloo day feeñ mais mais mais mais euh, Pape Sané euh, président Macky Sall comme par exemple tey moom dafa wax ne euh, ñi nga xamante ni ñoo yor ay entreprise te ay nit di fa liggéey yéen ñi ko moom amu leen sañ-sañ euh, di fa dàq nit. Mhm. maanaam loolu lépp ma ngi ko ajoon ci ndimbal loo xamante ni moom dina ko jàppale borom entreprise yi. Mhm. mais ñu demee ba sa cëppaandaw ga bëri na tey ay njiitu entreprise yoo xamante ni ñu wax ko ci kaw ak ñu ñàkk ko wax ci suuf déception lañ am ci mbir mi ndax. président Macky Sall li mu leen wax rek mooy li leen mën a garanti rek mooy ci banque bi dem leen ngeen leb banque te loolu leb banque yow da koy fayaat da koy fayaat waaw kon loolu jàpp naa ne du du du jàppale euh, mais li ñu bëgg a wax tamit mooy réew mi ni mu mel nii avant coronavirus di am mm-hmm. li Sénégalais yu bari nemmeeku woon mooy après élection dañu gisoon ne réew mi dafa metti réew mi dafa jafe ñëpp jàpp ne xaalis bi yëpp dañ ko jël def ko ci mbiru campagne xaalis bi waroon na dugg ci réew mi duggul ci réew mi loo xamante ni président peut-être tey élection bu ñëwee président dina fat bunt yëpp coronavirus bi ñëw jamono ji ak fi Sénégal yi toll ak état d'urgence beek lu mel nii est-ce que mënut a jur leneen loo xamante ni état sóoraale wu ko woon. bon euh, xam nga ci jàngat bu gaaw euh, ñun tolluwuñu ci réew yi nga xam ne dañuy mobiliser euh, économie maanaam dañuy jël économie euh, dañuy jël koppar. tere ko mhm. ñun tolluwuñu foofu parce que ñun on vit au jour le jour cest à boo xëyee tey am mille francs euh, dépensé ko utiwaat suba 1000 francs ñun noonu la ñuy dundee mhm. mais boo xoolee xam nga Sénégal ndax lan ñu sonn te corona bi nar ñu gën a sonnal mooy que boo xoolee projet président Macky Sall projet mi yii mhm. soo ko xëyma mobiliser na au moins trois mille cinq cent milliards yi nga xam ne amul productivité boo jëlee terre bi mu ngi ne tekk taxaw boo jëlee BRT bi mu ngi ne tekk taxaw jëlal euh, cité xaw ma lan euh, xaw ma lan de cité xaw ma lan bu jam ñaajoo mhm. kazalika xoolal centre Abdou Diouf bi cest à amul benn productivité. ci ah, économie bi même hôpital yi mu doon tabax yu bari taxaw na instant bi hôpitaux yi sax bu taxawoon bu ubbi woon sax xëy na ñu am mu am mu am rentrée wax mi fonds yi nga ne lu toll toll ci trois mille cinq cent milliards wala bu ëpp ko nga xam ne daf ko mobiliser ci ay projets yi nga xam ne man ay gadget laa leen tuddee. même stade bi doon wax stade olympique stade boobu man gadget laa leen tuddee ay gadget yi nga xam ne tey jii amul benn impact. ci vécu sénégalais amul benn impact suñu économie. léegi lan la mën a jur. loolu moo ñu njëkk sonal. Mhm. mooy benn. corona bi ñëw la nga xam ne moom nañ doon lijjanti astuut mooy douane recette douane yi nga xam ne moo doon gën a jàppale nguur gi euh, recette impôt et domaine yi nga xam ne moo doon gën a jàppale nguur gi recette yooyu pratiquement à cinquante pour cent faaga corona faagaagal faagaagal na leen. nga jógee ci loolu nga jël ñetteelu point bi nga xam ne moo gën a rey suñu économie. Mhm. mooy scandale financier yi nga xam ne moo am ci dëkk bi scandale yooyu rek boo ko dajale woon rek xaalis googu ñu dolaat dugal ko ci trésor public rek pendant cinquante ans sénégalais yi daañu dund te duñu leb donc loolu moo njëkk faagaagal économie léegi nag pour tontu sa question mooy que loolu lan la mën a jur mooy que tamit xam nga askan boo leen jiitee ñu yaakaar la fal la mooy que dafa am li nga xam ne dafa war sa diggante ak ñoom mooy bu ñu bëggee faju faju bu ñu bëggee lekk lekk bu ñu bëggee liggéey liggéey bu ñu bëggee doxi seen soxla doxi seen soxla bu dee loolu nag yow en tant que njiit mënul leen ko assurer askan moom yoon moo ko may ci constitution ne ko bu la sa nguur tegee lu la metti nga nga wan ko ni que lii daf la betti ñu daal di ko bind suñu constitution Sénégal ne ko saa bind ko ci constitution Sénégal ne maanaam saa su nekk soo amee yow askan bi li nga xam ne metti na la génneel nga manifester ko manifestation yi nag mun na jur est-ce que jàpp ne Sénégal euh, askan bi du ñu dem ba benn moo tax ma ne la manifestation yooyu mun lu nekk parce que nit ñi dañu toqi quand même boo gisee laisser aller bi am ci dëkk bi da génn nii bi may ñëw nii chauffeur bi ma indi sax takkul masque ma a ko waaye sëñ bi mu ne ma sa waay dimbale ma waay nga takkatu ko loolu moo lay wan ni que am na benn sance bi nga xam ne public ñu ngi koy teg te ñoom ñu ngi koy gis te mënuñu ci dara yooyu nag il faut ñu teel ci waxaat waxaat nag mooy que il faut ñu communiquer avec la population wax ak askan bi wax ga nga xam ne du deñ parce que ñoom ñoom ñoom nag seen wax nag mi ngi commencé nag gars yaa ngi koy commencé miin mooy que saa lu saa yu ñu waxee mu dañ te ka nga xam ne boo waxee mu dañ nag finalement boo waxatee kenn du la déglu d'accord léegi sànq euh, Pape Sané yaa ngi wax ci mbiru euh, ay scandale ay tojaange fan yi dañoo gis benn euh, contrat boo xamante ni tey euh, amaana yàgg na ñu bari ñoo ngi ciy wax fan yi sax démb gis naa euh, ñoom Thierno Alassane Sall ak ñooñu ñu communiqué si ak Abdoul contrat bu dox diggante Senelec ak Akilee yow nga bokk si ñi nga xamante ni tey euh, bokk ngeen si ñi njëkk a wax ci mbiru contrat boobu noonu ndax loolu yu mel noonu tey bu dee dafay faral di am ci réew mën na indi gàllankooru réew scandale tojaanga yu mel noonu ak lan nga ñu mën expliquer ci contrat boobu. waaw contrat boobu ci gàttal euh, Abdou Khader man ba ma koy njëkk am boobu sax yàlla mi ma tim publier googu génn génnagul c'est-à-dire guñ ko man bi ma koy njëkk am moteur bi may njëkk am boobu Mouhamadou Matar Cissé DG Sénélec signé gu ko ak li ko. contrat bi contrat bi man bi may njëkk am bi ma njëkk am boobu signé guñ ko gis nga moteur boobu euh, il faut que sénégal yi tamit gërëm certains syndicalistes ku mel ni Lamine Diarra parce que ñooñu bu ñu teelul woon wax ba contrat bi njëkk bi ñu njëkk def bu jàlloon mooy musiba lay jur. xëy na ñoom la ñu teel a wax bañ leen invité ci ay euh, restaurant ay hôtel Sali toog waxtaan boobu la gars yi xaw a changé as tuuti ci contrat bi mais lan nekkoon ci contrat bi d'origine bu ñu ko génne woon mooy que euh, Sénélec bi je crois que tey jii Akileg lay tudd wala leneen mais du dootu tudd ci seneleg euh, mooy benn ñaar contrat bi la ma ci waxoon ci njëlbeen dama ne dafa am ñaari mbir yu tey xel li ci gën a tey xel mooy dañu toog ba ne fii ak juróom-ñaari fan nañuy dem élection présidentielle jamono yooyu ñi wax ko bañ ko wax nguur gi kenn ci ñoom toogul benn place parce que xalaatoon nañ ne que dañuy perte nguur gi wala dañuy dem deuxième tour lu leer laa la wax ci genre yooyu bu amee boo gisee ci wàllu fonctionnement démocratie ñuy tere nguur jamono yooyu bu amee ñi jël yenn décision yi parce que yu mel nii nañ ci doon ragal mooy maanaam man li ma ko tuddee mooy parachute doore mooy bon dañ fiy waaj a jógee nañu ut weeruwaay weeruwaay bi mooy lan signer ay contrat yi xam ne bu ñu fi jógee daañu am as tuut li nga xam ne daañu ko téye mooy parachute doré loolu moo tax ñu signé contrat bi mais contrat bi amul dara dara dara lu ci baax pour Sénélec amul dara dara dara lu ci baax pour. Euh, euh, euh, Sénégal la moo tax baaxul pour Sénégal. ndax lan baaxul pour Sénégal tey jii ci gàttal. yow yaa moom boîte bi nga woolu ma ne ma man dama bëgg nga ñëw xoolal ma sama boîte bi. lii ak lii ak lii pourquoi du dox courant bi fii day coupé affaire bi fii lii ak lii ak lii du dox climatiseur bi du sedd ma ñëw xoolal la loolu saytul la ko ba pare ne la lii ak lii ak lii boo ko defee sa mbir mi yëpp dana réglé wu ma daal di rocceeku man dem ci gannaaw créé waat benn société daal di ñëw ne la nag man lii mun naa la ko lijjantil xam nga loolu. loolu la ak li def loolu la ak li def loolu ci wàllu droit. Euh, malheureusement ñun yu mel noonu dañ koy minoriser dañ duñ dañ ko jox fulla mais ci wàllu droit ci démocratie loolu warul am parce que loolu la ñuy wax délit d'initié mooy maanaam yow xam nga problème mu société Abdou Khadre xam nga ko ba pare soo ko xamee ba pare yow amatoo droit postuler ci affaire boobu parce que Abdou fay na la la nga xam ne lii mu taxoon mu woo la fay na la ko yow dès l'instant fay na la ko rek yow génn ci bokkatoo bokkatoo ci moom mooy dem uti kan moo ko koy defaral mais ñoom moom mooy première chose bi ñu def mooy premier premier entorse bi nga xam ne moral moralement sax. mooy maanaam maanaam Senelec ñoom dañoo amoon ay jafe-jafe ay perte technique ak perte non technique ñu dem xooli benn cabinet <coughs> pour mu jaño diagnostiquer ko ban problème la am mais ñi nekkoon ci cabinet boobu tey ñi nekk ci Akilee dañoo nekkoon ci cabinet boobu ba xam lan moo nekk ci biir Senelec mujj wëlbatiku dem ñëw gagné marché boobu waaw loolu yoon daf koy tere yoon da koy tere mhm. mooy benn euh, ñaareel bi marché bi amul benn offre mooy maanaam amul benn offre bu ñu publier ci benn journal pour wane ni que senelek soxla na lii mooy ñaar tey wàllu marché ci Sénégal yoon dafa ne bu eggee bu rombee diir bii rek cinq millions yi bu ko rombee rek fala bu dë war danga war a def appel d'offre amul appel d'offre mooy ñaareelu mbir mi nga xam ne xel tey na ci ñetteel mbir mi mooy comme ni ma ko waxee mooy instant bañ ko signé une semaine avant élection présidentielle gars yi naan déet trois jours avant élection présidentielle ñu signé waat ñaari avenant pour Akilee xam nga dañuy wax ci contrat Akilee mais avenant yooyu ñoo gën a bonati gën a yéesati pour Sénélec ak Sénégal ñu signe ko loolu Abdou Khadre xam nga lu muy indi euh, mooy que Sénélec situation ba mu nekkoon xam nga euh, nañ ko wax tamit parce que Matar bu mu nekk DG am na lu mu fi liggéey lu baax te liggéey boobu xam nga ndax lan mu baaxoon Matar Cissé pourquoi il avait réussi ci chapitre boobu parce que dafa ñëw jël ay prestataires ay GIE ñooñu ñoo yore woon quatre vingt pour cent wu liggéey Sénélec mhm. bien vrai que toog nañu ay ñii ay at ñii ñaari at ak genn wàll fay ñu leen ñii toog juróom benn weer juróom-ñetti weer fay ba tey jii am na ay GIE yi nga xam ne prestataires yi nga xam ne Sénélec mu ngi leen ameel xaalis fayu leen te ñooñu ñoo yore tey jii ba liggéey ba tey jii tey ñoo yore liggéey Sénélec loolu bokk na ci lii tax si Cissé réussir mais ak contrat Akilee bii mooy que prestataire yooyu Senelec bu doon da leen doon fay cent francs par heure tey jii bu leen di Akilee di liggéeyloo dana fexe ba Senelec dootu leen mën a fay cent francs par heure xam nga ndax lan tax parce que cent francs par heure boobu mu leen di fay Akilee dana ne ne comme maa leen sant liggéey boobu pourcentage bi da ngeen ma ko ciy fay xam nga ndax yaa ngi comprendre bu baax saa à dire tey jii bu doon cent francs par heure la leen Sénélec di fay. ñoom euh, prestataires yooyu GIE yooyu. ak mhm. contrat Akilee bii. Mhm. c'est-à-dire tey jii bu ñu leen liggéey bu ñu leen yónnee ñi dem liggéey mooy GIE ñi dem liggéey ba mhm. pare. Sénélec war leen fay cent francs. cent francs yooyu a déedéet yi moom parce que man maa la sant yow Sénélec nga wax leen ñoom ñu dem liggéeyi lii. mooy mooy moo moo lay wan ni que. mais mais Akilee moom amul personnel. amuñu personnel Sénélec moo am personnel. amuñu amuñu personnel. amuñu benn personnel cest à euh, soo soo ko soo ko xoolee rek ci wax ju gën a simple rek euh, mooy que ñoom euh, dañu ñëw fekk lu taxaw ba pare ñu ne léegi ñoom maanaam sama diggante ak yow nii ñu ngi wax di kërën kërën ñi ñëw ne noonu léegi ñoom garaawul ndaa ñu nekk intermédiaire sama diggante ak yow problème bi loolu kese la cest à pour wax ju simple rek sénégalais yi mën a comprendre mhm. Sénélec fa ma doon jëndee compteur ba ba deux mille dix ba deux mille douze yooyu fi mu doon jëndee compteur foofu la akali jëndee foofu la akali di dem di jëndi parce que. mais même prix mais loolu nag mooy problème bi xam nga société ku ku taxawal société sa sa sa première intention mooy lan mooy le profit mooy bénéfice. Mhm. waaw xam nga Senelec bu doon jëndi compteur bi 500 francs euh, euh, fële ci Huawei wala beneen firme chinoise. Mhm. mais xam nga ni bu Senelec entité publique. Mhm. xam nga mën na ko fa jëndee. Mhm. bu ko fa jëndee tey ji mhm. euh, ak li dem di ko fa jënd même nga foog ne dana ñëw jaay ko Senelec cinq cent cinq cent mille francs wala mille deux cent wala mille cinq cent. te pourtant bu ko Senelec doon jënd mën na ko jëndee quatre cent francs quatre cent francs loolu mooy scandale bi nga xam ne moo ci nekk tey ji nag. léegi contrat bi dix ans la. contrat bi dix ans la mais bon euh, démb conseil d'administration bi autorisé nañ ñu renégocier bi. kenn waru ko renégocier. contrat bi war a def contrat bi dañ ko war a kase cest à nañ dem ci yoon na lekk ak nguuru Sénégal dem ci yoon ak li kase contrat bi. mais est boobaa kon du ñu fa Sénégal du fay Akilee. waaw mais xam nga tamit dëkk yoon nañu nekk am na li nga xam ne tamit. Euh, xel nangu ko waa xel nangu ko. nañu dem parce que tamit négocier renégocier contrat bi tamit amul benn sens xam nga ndax la amul benn sens. Mm-hmm. parce que 187 milliards yooyu nga xam ne moom la ñu moom la ñu contesté. xëy na bu ñu ko renégocier daan leen fay cent cinquante milliards mais ak lii nga fay leen un milliard sax perte la. waaw mais tamit euh, Pape Sané est-ce que tamit Sénégal kenn ñu mën a fee signé benn contrat bu toll ci euh, cent quatre-vingt-sept milliards sans autant que njiitu réew mi di ci ànd. mais moo tax ma ne la mooy parachute doré moo tax ma ne la mooy parachute doore c'est-à-dire bañ koy signé mooy que ñoom ñi ngi doon xalaat ni que nguur gi daañ ko perte. mais pourtant ñu bari ji dañuy wax ne président Macky Sall dafa réeroo ak Makhtar ah xaw ma ndax réeroo nañu wala réeroo ñu de mais en tout cas daal xam naa ni que ci wàllu stratégie politique coow lii mu jur président mu tàqali koog moom moo ko gënal. tàqali ci wàllu stratégie politique laa la wax. tàqali koog Makhtar Cissé waaw tàqali non coow lii mu jur. parce que tamit il faut que comme ni ko waxee nii mooy que kenn mhm. mu ñul signé contrat ko. donc moom pour wane ne que moom yoonam nekk ci moo gën a yenu maanaa. mais Makhtar euh, Pape Demba Bitèye tamit jàpp nga ne lii muy def nii moom moo koy def ci. ci ci gis ne contrat bi jaarul si yoon ak syndicat yoo xamante ni sàkku nañ ak leeraa ngi am ci mbir mi. lenn lu ma leer am na xaw ma ndax ci wareefu boppam la ko defee wala defu ko euh, mais lenn leer na ma mooy que juste bi mu toogee commencé na woon benn audit gars yi ci kaw ñu banque loo xam ne ko noo bàyyi loolu moom mooy lu ma leer mais lii nii nga dem ba di jàmmarloog sa ministre de tutelle. c'est parce que da nga am mu wéeruwaay ak gannaaw bu dëgër su ko amul woon du ko def Pape Mademba bi tey mhm. su amul woon ku ko taxawu ci kaw sañul affronter ma euh, waaw mais mais tamit euh, ak tamit ay euh, ndaw lañ yoo xamante ni te ay sénégalais lañ te gis nañ tey réew yoo man di dem tamit am na fa ay sociétés yu mag yoo xamante ni tey ay société nationale dafay am nag liggéey yoo xamante ni dañ koy maanaam ay contrat yu ñu signé ak seen secteur privé est-ce que tamit ak gi jëruñu woon tamit maanaam dooleel leen waaw peut-être mën nañ leen doole ci beneen domaine mais ci domaine wu contrat bi bi leen lii ak Sénélec euh, xam man préférence nationale boobu dafa dama ko waxoon temps yi dama ne leen man gisuma ci préférence nationale parce que préférence nationale tey jii man bu ñu demoon Akilee jox nañ ko signé nañ ko contrat dem na négocier ak la société chinoise Huawei ba def benn benn benn benn benn benn benn retour de de de de de technologie mooy maanaam tey jii compteur yooyu jox nañ ko. tout l'agencement technique technologique bu ñëwee fii day installer compteur day installer usine boppam ay sénégalais di ci liggéey mu nekk lu ñu daan transfert de technologie mais lii amul benn transfert de technologie bu ci nekk c'est-à-dire Abdou pour li ma la wax rek ci gàttal inter média kii intermédiaire la rek mooy maanaam courtier la rek affaire courtier la fi nga doon jëndee bàyyi man maa dem di fa jëndi geex na mais bu doon tey jii dañ ne ñoom Huawei bi ñu bi nga xam ne moom mooy defar compteur yi. Mm-hmm. ñoom signé nañoo ak Huawei transfert de technologie mooy Huawei ñëw ubbi fii usine sénégalais yi di ci liggéey ba nga xam ne bu subaa dix ans bu jotee du ñu soxla Huawei sénégalais yi fi nekk daa ñu mën a liggéey continuer di defar seen compteur bopp ma waaw kooku euh, préférence nationale am na ci yoon mais lañu def nii yow mii buñ la ko joxoon nga def ko. d' accord léegi dañu gis ne euh, opposition bi euh, ku gi ñoom ak président Macky Sall déggoo woon nañ ba mbir mi doog di commencé mais gis nañ daal ak euh, li nga xamante ni mooy euh, décret euh, président honoraire bu conseil économique social environnemental bokk na si li leen li leen féewale yow lan moo ci saxlaat ci ci ci ci décret boobu. waaw loolu moom bokk na ci benn benn mbir la ci. leen féewale ci bi leen féewale parce que li leen njëkk a féewale mooy. affaire Mansour Faye bi. non non pas bi mooy loi d'habilitation bi moo leen njëkk a féewale. Mhm. après mbirum Mansour Faye mbirum Mansour Faye sax bi mu egsee sax boo si boo gisee ñu ci bëri dañ ci xaw a màndu Euh, dafa xaw a quand tey xel quoi mënoo ñaan sénégalais yi ñu serré wu la ceinture nga ñaan leen. ñu mhm. toog seen biir kër. Mhm. nga ñaan leen euh, ñuy sacrifié wu. Mhm. dégg nga. c'est vrai que sacrifice boobu pour ensemble sénégalais yi la mais yow si sa côté nga toog daal di ne tànn kenn ci Sénégal ki nga xam ne mm, nekk na fi peut-être ministre def na fi li yëg li yëg lii mais. nga tànn nekk kooku da ko defal lii giru dundam xam nga loolu ci jamono ji nga xam ne ñi ngi ut koppar yi nga xam ne moom la ñuy fajee eh, coronavirus bi. Mhm. day tey xel. opposition bi rôle am la parce que tamit opposition bi euh, quoi qu'on dise euh, respecté nañu benn moment seen kàddu mooy consensus national bi mais tamit opposition bi kenn confiné wu leen. Mhm. waaw tey jii seen rôle mooy ñu génn wax. c'est-à-dire ñu wax ci ci ci ci li ma gënaloon nag mooy ñu gën a wax nag ci gestion coronavirus bi. d'accord parce que foofu la leen sénégalais yi xaaree bu mais pas ci c'est vrai que lii c'est important mais pour man lii benn détail la. waaw mais mais boo nekkee président honoraire moom da ngay liggéey wala doo liggéey. no doo liggéey da ngay tëdd sa kër rek. chaque fin de mois ñu fay la. ñu fay la 4 comme président la République yi nga xam ne. wàcc nañu Abdou Diouf Ablaye Wade da ngay tëdd sa kër rek chaque mois ñu yëkkati li ñuy yëkkati jox la ko euh, garde du corps oto li yëg li yëg li jeex na. mais loolu est-ce que ci réew mu mel ni Sénégal jàpp nga ne lu ñu war a am la yow rafetlu nga ko. non rafetlu ma ko parce que ñun déjà si sunu wàllu yoon constitution président de la république rek ak li ñu naan les généraux la yoon may loolu may ñu am traitement à vie. Mm-hmm. waaw. tey jii euh, Abdoulaye Wade jéemoon na ko fi ci mhm. ay magistrats. Mhm. waaw honoraria à certains magistrats mujjuwul antu dégg mais bu ñu continuer ci nii xam nga mujj finalement fu ñuy mujj. Mhm. mooy sa ay ministre à vie. d' accord voilà jërëjëf euh, Pape euh, Sané fan yi nag euh, génne woon nga benn article si Atlantique Actu benn lettre boo xamante ni da nga ko adressé woon président Macky Sall lettre boobu nag yow da nga bëggoon daal président Macky Sall gën a bàyyi xel Casamance xoolaat ko lan nga dëxañ ci lettre boobu. waaw ci gàttal en fait lettre bi. sama waxtaan la woon ax ndeysaan euh, benn journaliste bu doon euh, correspondant wu laas bu newoon Ziguinchor samay waxtaan a moom saa yu ma doon dem Ziguinchor nii nañ doon waxtaanee comme ni ma toogee ak yow nii ñuy waxtaan mu may poser ay question ci situation bi. Mhm. donc moo tax ma ne nii pour delloo ko njukkal comme génn na àddina. Mhm. xaaral naa bind président Macky Sall. daal di ko exposé su daal di su metre question yi nga xam ne moom la ma dem si yàlla la Lamine Sagna doon poser quoi c'est vrai yu bëri tontu naa ko mais yi nga xam ne président moo ci war a tontu en fait ci gàttal mooy gis nga euh, mbirum Casamance euh, dañ ci rafetlu quand même avancé yi nga xam ne président Macky Sall def na ko parce que crise bi nga xam ne depuis 1982 ba léegi kenn mënu ci woon dara fitali di tàkk bali di kii moom mu ñëw 2012 ba léegi taxaw ci ba affaire bi ne nemm nee naa nag ci biir article bi neew ma xam-xamam la mun na doon xam-xam mun na doon baraka ñaar yooyu quoi mais neew ma xam-xamam la mhm. donc tey jii euh, loolu noonu moom président Macky Sall du moom kese dafa amoon ay nit ñi nga xam ne da leen faloon nommé leen foofu Casamance ñu nekk ay gouverneur ay préfet ay sous préfet ñooñu dañu taxawoon taxawaay bi nga xam ne parce que jamono yooyu boo demoon Casamance ñi ci bëri ñi ngi partagé woon entre Guinée Bissau ak Gambie ak Gambie parce que yaakaaroon nañ ni que ñooñu ñoo leen gën a jox euh, cër donc ñii dañ jàppoon seen bopp Gambien ñii jàpp seen bopp Guinée euh, Bissau Guinée soo xoolee ci frontière bi noonu la fa demee ñu bëri seen i doom euh, Guinée Bissau nañ doon jàngee wala Gambie préfet ak gouverneur ak sous préfet yooyu ma doon wax xeex xeex xeex ba indi li naan appartenance nationale mooy maanaam wan ñooñu ni que. Mhm. gox yooyu ngeen dem dëkk yooyu ngeen dem du seen dëkk fii mooy seen dëkk. Mhm. fexe ba drapeau Sénégal di fa man am nay béréb yi nga xam ne bi ma demee gis fa drapeau Sénégal dama jooy parce boo fa demee dalasi bu Gambie moo dox. tey jii tey ñi ngi Sénégal ñooñu nga dem fa gis fa drapeau Sénégal donc dalay wan ni que ñooñu liggéey nañu ma ne nag président dafa war a yokk ci liggéey boobu xam nga yokk ci liggéey boobu mooy lan mhm. mooy que mu def benn casting casting mooy maanaam ña fay nobe ji mu doon ay nit ñi nga xam ne ñëwuñu pour xoxatal nit ñi ñëwuñu pour bokk nekk ay complice daggkat di dagg bant bi dagg garab yi nekkuñu complice euh, di di xërtal nit ñi di di comprendre nga mu nommé ay sénégalais yi nga xam ne moom logique am mooy paix boobu ñu gën ko assoir gën ko asseoir mooy lan mu yónni ay nit ñi nga xam ne ñoom Sénégal moo leen ñor mais ñi ci bëri jamono ji je crois pas que Sénégal moo leen ñor. kon ñoo ngi lay sant baax di la gërëm euh, Pape Sané. jërëjëf waay jërëjëf euh, mbokk yi seen émission pencum euh, réew mi kon ñu leen di jox dig daje samedi bii di ñëw Abdou Khadre moo nekkoon ci micro bi tey ñu invité woon Pape Sané moom nag moo jiite ëttu taskatu xabaar bii di Atlantique Actu yi xelam nag màcc yi jëm ci wàllum càmbar lu jëm ci wàllum politique ak yu si aju Adama Diallo moo nekkoon ci wàllu xarala gi jër ngeen jëf jàmm ak jàmm.